13 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. ñi nga xam ni seen doom moo fi nekkoon li ma muy événement boo xam ni c'est très donc Sénégal yëpp moo am moo am vraiment dëj moo tax président def un deuil national à partir de demain pour trois jours moo xam ne lii métti na ñëpp. ñu ñaan lii yàlla bu mu amati ci fenn amoon na Linguère amaat fii vraiment ñu ñaan tibbi ko suñ xol ñëpp jàpp ci ñëpp jàpp ci pour que lii vraiment muy loo xam ne dañ koy nettali mu bañ amaat vraiment ñu ñaanal ñi nga xam ni vraiment ñoo perte seen doom ñu mën ko muñ vraiment di ñaan aussi vraiment lii lii lii lii moom vraiment moo bañ fi amati ñëpp ñëpp ñëpp def prise de conscience ñu nga xam ni jamais pris sax jamais pris ça jamais pris ça. est-ce que présentement xam ngeen lan moo waral lakk bi. non xam nga loolu yëpp comme dafa am benn enquête bi nga xam ne ñu ngi koy commencé soxlawul ñu ci ñu ciy dem di fausser enquête bi xam nga le président a à travers son ministre de l'intérieur ñëw na nee nañ dinañ def benn audit xool lan moo waral lakk bi lan moo waral lakk bi moo tax vraiment boo ci avancé rek. ci loo xam ni maîtriser woo ko da nga xam parce que loo xam ni dafa exploser kenn fekkewul lu xam nga dafa lay bett lu la bett mën la lu exposé dafa lay bett gars yi débrouillé nañu ba génne ñaar donc euh, vraiment nañu xaar enquête bi. ñaar ñooñu mucc nañ. ñaar ñooñu mucc nañ ñu ngi leen di traité ci feneen mucc nañu parce que onze rek dañ ci pertagul mais vraiment ñu ñu def enquête bi sérieusement pour que lii bañ a tete am pour mu doon une leçon xam nga jolaa bi mu amee pare dañ def ay enquête sérieuse xam ne ci lañuy peut te dañuy tere ay surcharge ay yooyu yëpp. donc vraiment ñu def enquête bu baax ba nga xam ne lii moom ñëpp ko regretter vraiment ñu ngi compatir trop trop trop ci métier bi président Macky Sall dina ñëw samedi parce que lii deuil national la parce que loo xam ni onze ñu tuuti ñu dese ci fenn xam nga président santé ak éducation daf ko teg lu rëy ba amee un déficit sur la santé wala sur sur sur sur l'éducation rek daf koy métti trop moo tax mu ñëw wone ni affaire bi metti na ko masawu waa Tivaouane masawu waa Sénégal yëpp wan ni kii c'est un deuil national ñu ko ci gërëm di ko sant jël na attitude bu baax jël na une bonne position boo xam ne ñëpp xam na ni fi mu ne nii moom moo ñàkk loolu laa ci doon wax di leen gërëm yéen ñëpp di leen sant. est-ce que jamono ji jot ngeen a waxtaan ay échange entre yéen ak ñi waaw à travers le maire et à travers quand même les autorités religieuses dem nañu seeti leen pour dalal leen pour dalal leen am na ay ndimbal aussi yoo xam ne commencé na ñëw vraiment ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ci vraiment def un appel parce que quand même ñooñu moom laaj na un encadrement même technique pour que rek ñu xool leen bu baax encadré leen suivre leen parce que lii dafa métti trop trop trop trop trop. mais monsieur le ministre ndimbal yooyu tamit euh, waaw mais waaw non cest à dafa am lu xew. loo xam ni moo toog nii mais ndimbali ñu ngi koy def ci hôpital bi ko xam hôpital bi dañu fee lekk yëpp euh, soxna xalifa bi presque moo koy togg indi ko fi ah am na ndimbal yu bari aussi ñu ko fiy def waa Tivaouane fii ku fi hospitalisé presque doo jënd lekk yëpp soxna si ak waa ñu daara yi ñooy indi fii ay lekk ñu def donc xam nga ndimbal bi ñu ngi koy def mais lii dafa am ñii lu leen dal fii beneen ndimbal la ñu soxla ndimbal boo xam ni dañ leen di dañ leen di teeylu dañ lay dem waxtaan ak ñoom parce que vraiment lii dafa métti métti boo xam ni bu fa boo àndul ak sa xel trop mën nga fi jóge sax am benn défiance mentale wala dara moo tax dañu war a subi. li xew waaw euh, euh, hmm. mais xam nga loolu yëpp accident la xam nga li xew Linguère ak li xew fii mën na bañ a doon benn ci di ko indi ci léeg-léeg li nga xam ni moo tax. mu am c'est un accident un accident nag c'est un accident il faut ñu enquête bi génn ñu xool lan la pour xam quelles sont les voies et moyens yi ñu mën a jël pour que lii bañati amati mais daal ce que je peux dire mooy que nañ def tout ba lii amati ci Sénégal. merci monsieur le maire juste une dernière question. waaw euh, ay at ci je pense que c'était en deux c'était en 2018. da wax léegi autorité religieuse moo tax sama xel dem ci. Euh, xalifa bi waxoon ñu jóg ci hôpital bi. waaw jóg nañ waaw jóg nañ ci hôpital bi parce que bu fekkee ni que président Macky def na ay hôpitaux ay def na hôpital Kaffrine def ko vraiment si kii léegi léegi ñun am nañu financement bu ngant pour def beneen hôpital bu mel nii hôpital bi ñu def Touba bi ñu mel ni ñu def vraiment Sédhiou def ko Kaffrine donc loolu mooy ñëw en attendant def nañu élever nañu fii plateau médical lii ndogal la ko sérieusement ndogal la parce que quand man dinaay ñëw souvent ci hôpitaux bi di fi indi ay bagages et tout ça xam naa ni toutes les conditions sont prises pour que hôpital bi dox ci yoon ndogalu yàlla nag il da xaar ba enquête bi génn. parce que loo ci wax rek da ngay wax loo xam ni que tegoo ko fenn dañuy xaar ba enquête bi génn bu enquête bi génnee dañuy situer les responsabilités ci ci ci war yëpp dinañ ko def jërëjëf. xam